sëriñ bi ñu ngi lay siyaare ci turu Cheikh Mouhamadou Mountakha nee na mi ngi lay nuyu di la sant di la gërëm ndax xam na ne bis bi boo ko ko jéggalu toon mooy fii ñëw jiite ko ànd ko yow ndax la ci jëkk mooy fi jëmmi Serigne Touba yilif njabootu Serigne Touba gépp waaye naka jëkk lu ma sax xew ci sa biir kër gi danga koy wax ne ko yaa koy jiite si ndax yaay taw kër Sëriñ Souhaïbou nee na loolee nag waxoo ko rek yem ca yem ca waaye yaa ngi koy jëfe sa digg ak moom kon nee na mi ngi lay sant di la gërëm di la ñaanal ci barkeb Sëriñ Tuubaa suñu borom dëgëral la kàttanal la may la wér-gi-yaram ba li nga bëgg liggéey liggéeyal sëriñ bi lépp nga liggéey ko ni nga ko bëggee ci barkeb Sëriñ Tuubaa bis bii nag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 mu yàgg fi ndax kilifa gu baax la kilifa gu mat kilifa la lii Serigne Touba doon wax ne wa hablana makaarimal axlaaqi maa tahaabu bila siqaaqi loolu suñu borom defal na ko ko mboolem ñi ñi bokkal Serigne Touba ak mboolem ñi bokkal Serigne Son bi kenn ku ci ne wa yu'thiruuna ala anfusihim walaw kaana bihim xasaasatun dal na ko diggam ak ñoom kenn ku ci ne lépp lu mu gis ci lu baax yow la ko gën a yéene ci jëmmam moo waral itam ñëpp maase ci ñi mu bokkal Serigne Touba ak ñi bokkal Serigne Souhaïbou bi ñëpp ñëpp maase yéene ko jataayam bi ngir xam ne xolam bi ñëpp maase nañ ci xam ne ne perkaar rek la mel loolu du lu baax ñëw ci moom te loolu ñi mu bokkal nañ ko ko waaye nag ku wóotu ki mu fi wóotu allahu ahlamu xaytu yajcalu risalaati fi suñu borom mooy tànn ki war a jiite.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 ci diggam ak alxuraan ngay wax ndax léppam alxuraan la woon lim mokkalal ci ay nit gindi leen kenn xamu nu toll te la ay yahdiya allahu bika rajulan wahidan xayran laka min humuri am defar kenn nit képp moo gën àdduna li ci biiram sëriñ soobe nag ay junni junni nit ñoo defaroo ci moom kon la ko sëriñ Tuubaa waxoon ne li tax ma tàngalal ataaya ji sama loxo de mooy bëgg nga xam teraanga te fonk alxuraan loola nag ndénkaan la woon loo xam ne Serigne Touba da koo dénkoon ci njabootam gi waaye lépp matal na ko kon nag ñi ñaan bis bii nga xam ne ci la gane woon adduna balim liggéeyal Serigne Touba liggéeyal ko lislaam lépp yàlla def mu mën koo jëf bis bii saa su delsee yàlla na suñu ba gën a dolli ay leeram tataa suñ ci barkeem te liggéeyam bu rëy bi mu fi bàyyi itam na ko waxee woon maa ngi koy wax léegi ci kër Sëñ Abdou na ma ko waxoon sëñ Cheikh mu sëñ Buxaat ci weeru weeru barax lu ñu ne ginnaaw suba la koor koor gi fi mu mujj jóge boobu maa ngi toog da ko wax ne ko jàngukaay bii de maa ngi koy bëgg a ubbiwaat ngir bëgg njàngoom xam-xam yi ñu gën koo fonk ne li ma ci gën a jublu nag ñoom ñii laa bëgg seen njàng mi na la ma ci bëgg mu am ko ci ndax bu ma soñal daara ji de waxtu nekk muy bëri bëri ba faw loolu nag ku dugg ci daara ji gis ni nga ko liggéey dana xam ne di jëm ci woon àggali nga ko. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.